dana am na xaas ci xasee bi am na xaas ci soow bi. loolu loolu rek moom moom moom lañ koy xoolee moom lañ tax ñu di ko déggee di ko di ko wéttali ko. moo boo bokk taalibe yi mu àndal yëpp ñëwal Sëñ ànd ñu ànd ak moom ngir loolu ko seeral ñoom bokk ca bokk bëgg kon cant.